li ma fa jëlee lu simple la euh, bëgguma sa tudd tur parce que boo tuddee tur day mel ni daf la metti quoi te méttiwu ma sama destin la yoo loolu la yàlla tuddoon ne man il faut ma jaar ci pour mën a nekk feneen benn moment Edouard moo ñu fay doon ñun groupe la ñu woon bi Edouard demee ki géré programme bi après moom mënatu woon di gérer booy Edouard des foofu alors Edouard dem na ak Edouard ni mu fa woon. ok ni mu fa jugee moo tax voilà donc après mu fexe ba ku nekk mu libéré ñu benn par benn jour bi may libéré maa ngi war a animé ci ngoon gi. maa ngi waroon def 22 deux heures zéro heure. Mhm. amoon invité ah kale invité ba pare bon mu woo ma ne ma jaru ngay ñëw parce que sa contrat jeex na xam nga loolu c' est injustice. c' est injuste est ce que boobu sa contrat dafa jeexoon. jeex na mais contrat dafa am euh, da nga même boobu bu ma jeexalee mois bi mhm. da nga may may un mois. waaw loolu yoon ma ut fu ma nekk wala ma jéem a lijjanti leneen nga ne ma non mois ñu ngi koy jeexal donc. Euh, comme préavis rek mhm. boy waja baye dañ lay may un mois bo xam na ngay di tàggoowaale di waxtaan ak gars mhm. le temps que ñu out kenn ku lay remplacer mhm. booy baye aussi c'est comme ça mais bon comme mom boobu bëggoon na ma quitter coûte que coûte mu wax ma loolu man aussi ma gëm yalla guddi goo damaa baale dérangé wu ma dama balé dem soirée dafa salam mo ma jouer joué Skyner ma dem baali fecc sama xol après ben ma xëy nek sama yeneen affaire sama salaire fa ko baye ba légui may naa ko salaire boobu